sëriñ bi nag moom ci boppam daana toggi ñamam tàngal kafeem di bégal mbooloo mi yoon waa ngi ci màggalu Touba gi kërug téere gi di les éditions Minane moo leen di présenté ay xéewal yu ngeen mën a yóbbaloo waaw mu jëm ci ay mooli xasida yu mucc ay ay téere yu Serigne Touba Xaadim Rasul bind ñu firi ko ci français ak ci wolof nooru daaray ni bu taaru lool te murite moo bu def jaalibatul maraaxib mafaatihul bisri taysiir wa asiir ak wakaana xan waaye ñeenti xasida yooyu benn boo ci bëgg def nañu ko ay mool yu rafet te lii di ma masaalikul jinaan di téerib Serigne Touba bu siiw boobu ci tasawuf te ñu traduire ko commenté ko ci français am nañu ko ak ñetti téere seexul xadim yi ñu firi ci wolof muy tasawdu si xaar jëw jawhaaru nafis jëm ci ngëm ak jaamu yàlla ak naxju jëm ci yar ak teggin ak yeneen téere yu ngeen yittewoo les éditions Minane lépp loo xamante ne bii jaay nañ ko ci téere 10 pour cent yi dañu koy dugal ci liggéey bi nga xamante ni bii sëriñ bi sumb na ko ci wàllu njàng ak njàngale. yéen ñi ko soxla bu dee ci Dakar mën ngeen a dem boutique islamique albisru jàkkaarloo ak jumaay masaalikul jinaan ci kolobaan ci wetu càmmoñ boutique islamique albisru nekk ci wetu marché njaareem bi jëm stade ba wali bu dee ci dëkk bu sell bi di Touba mën ngeen fa amee téere yi ci maktab Touba Daaru Saam ak Baye Serigne Lay ci wetu bassin Serigne Moutada maktab sëriñ Mandiaye Kanté nekk ci péncum daaru xuddoos jàkkaarloo ak siège village bi ak maktab daaru minam xasaayit ak sëriñ Mor Ndiaye nekk ci péncum daaru minan kër sëriñ Basiiru Mbàkke xaadim rasool téere édition minan barab yi yépp am nanu fa mën ngeen a woote itam ci numéro yi nga xam ne benn bu ci nekk ànd na ak whatsapp muy 77 674 29 45 wala 78 148 17 17 wala suñu boutique en ligne ci daareeni point com waaye kàddu goo xamante ni dafa jëm ci ak cant goo xamante ni amel nañ ko sëriñ bii nga xamante ni tey moo teew ci jataay bi di suñu kilifa di suñu lépp muy sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Sohayb bi di ko ñaanal bu baax a baax suñu borom guddal fanam te wéral ay cëram ba naal wi nga xamante ni naal na ko ci yoonu maam wu tedd wi suñu borom matale ko bu baax a baax a baax a baax di santaat rek ak mboolem waa koñ bi nga xamante ni tey jii ñoom lañ àndal liggéey bi ci njiital Serigne bas mbàkke mi toog ak it ak njabootam ak mbooleem soxna yi fi toog buñ tuddee soxna may rek daanaka matale nañ waaye Touba Vision am beneen cant goo xamante ni daa bàyyeekoo ci sëñ Xaadim Seck fa yéene ko leeral sëriñ bi naam moom dara ump ko ngir liggéey bi nga xamante ni ñoo ngi ci ba tey àddina sépp fu waay nekk ci àdduna bi xam liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy liggéey ba tey ji waxtu wi daaw maanaam woon nañu doole lool waaye ginnaaw ba ñu raamee ba ñëw ba ci moom ba sàkku ci moom ñaan liggéey bi kenn mënuñu ci kenn lu ci def luñ ci defut tey jii bu nit ñi di nekk fenn fu nekk ci réew mi ak li génn réew mi di ñu bàyyi xel ginnaaw bi ñu tàbbee ci sab liggéey boobu nga xamante ni maanaam ñi ngi koy xel di wane saa su nekk looloo ko waral di jéggalu bu baax it léeg-léeg xam nañ ne eh, jël gi nga xamante ni moom la ñuy ñëw di jël si lumière yeeg lépp bëgguñoo dimbali képp a tax nga ñu koy nangul waaye loolu doonul benn yoon sa jubluwaay ak it ñeewante ak sàmm goo xamante ni yaa ngi ñu koy sàmm te ñu ko dimbali saa su nekk ba tax ne sa jëmm ji nga xamante ni moom la ñuy xool ci suñu seen bi loolu kat sëriñ bi ñu ngi lay seeral ne tey ñag nañu ñag joo xamante ni bu ñu naroon a wane leneen loo xamante ni zaahir la sax duñ ko sañ ndax sa jëmm ji nga xamante ni mboolem fu ab murid nekk rawatina ñiy dund xasida yi xame ñu ko buñ ko naroon a wane sax duñ ko sañ ngir bàyyi xel gi nga xamante ni ñi ngi la koy bàyyi xel bu baax a baax loolu nag ñi ngi koy cante Sëriñ Tuubaa gi nga xamante ni boole gi ñu booleeg yow bëgg ko waaye dinañ ko wax sëñ Cheikh Mbacke mu doon koo xam ne ku ñu dëgëral la ku ñu kàttanal la ci liggéey bi fu liggéey bi toll moom la tey jii dafa ànd ak ñun ci liggéey bi ñu ngi tub bu baax a baax lépp loo xamante ni euh, dëng na ci ñun ñii di ko mottali la waaye euh, liñ ñu yónni woon ëpp na lii di gërëm groupe groupe presse bi nga xamante ni tey jii Mbacke ñoo ñëw ànd ak ñun lii am na bi ñu yégee ne Vision dañuy def safar ànd ko waa koñ bi ñëpp dañoo ñëw ànd ak ñun suñu Assane Diop bu ñu luyee 7TV 2S Lamp Fall TV ñëpp dañ fee teew ànd ak ñun liggéey bi ba tax na ñu amoon Abdou Aziz Diop Guy Mbind TV ñu ànd ak moom moom it eh, ci liggéey bi nga xamante ni it ñu ngi koy am ci liggéey bu kër Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Souhaïbou naka jekk ba nit ñi fu ñu riiree ne kat lu xew kër am Amsatou wala dara kat ñu ngi koy xaar ci Touba Vision ak Guy Mbind TV. di sàkkuwaat ñaan bu baax a baax a baax a baax ànd gi nga xamante ni ñu ngi koy ànd ak yow suñu boroom gën koo dëgëral di gën a raamaat bu baax a baax tey tuub di jéggalu bis bi nag Mbàkke ñu ngi koy dagaan dañoo bëgg mu sax dañoo bëgg mu sax ñu ngi koy dagaan bu baax a baax a baax leneen li ci ko muy ci xasida yi kuréel journaliste yi nga xamante ni ñoo nekk fii ay at dañ doon naal taxawal kuréelu xasida di ko waaj waaye tey fii la ñuy njëkkee yëkkati li nga xamante ni mooy njàngum xasida loolu dara waralu ko kon jëwriñ gi nga doon jëwriñu xasida yi suñu borom gën na ko seereel gën na ko wéral ci mbébét mi nga xamante ni yàgg nañ ko am fu nañ ñu yàgg faa bëgg a dem yëkkati fa xasida yi ba tey ñu jàpp ko ci loo xamante ni matut ñetti fan ci bis bi ñëw fii ñoo xamante ni kat ba ñuy jàng seen programme seen wàccuwaay maanaam njàngum alxuraan ak leneen bokk ci woon ba tey jii ñu mën a toog fii sol ay yëre yu jot di yëkkati xasida yi ci weer tedd wi loolu ñu ngi la koy santeel lépp yow la bis bi li sëñ Xaadim waxoon sëñ Seex rek dañ koy tàmbali waxal nii lañ bëgg mu yem foo ñu ne fii la ñuy yem fa la ñuy yem suñu programme it bëri na jànkat yi nga xamante ni dañoo séq ak ñoom liggéey bu ñu limee dañuy juum ak ay waxtaankat ak ay kilifa waaye ku ñu woo rek dañ naan la programme bi kat bu sëñ bi ñëwee fu mu ko tënk fa lañu koy tënk doonul loo xamante ni dañ ko ñu ngi tub bu baax a baax ci kàddu yi ak yëkkati geeg taxawaay beeg yëpp ñu ngi koy tub bu baax a baax maanaam sëriñ bi nee na rafetlu na kàddu yi lool nee na ginnaaw nuyoo bi mu nuyu njiital liggéey bi di ci teg mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci am ak waa koñ bi ñu fekk ñëpp nee na mi ngi leen di sant cant boppam goo xam ne maanaam am na fu mu tàmbalee wa amul fu mu yem ndax li ngeen di daj ci ak coono yi ngeen di daj ci liggéey bi lépp xam na ko bisu xaside bi saabu jubsee yemu leen sax ci bis bi bu ñëwee waaye lu ko jiitu ngeen fay nekk lépp lu ngeen xam julli taaral bis bi ak lu koy jagal ci ngeen di xëy ci ngeen di gont guddi àjjuma yi yéen a koy yaatal saa bu ne toq seen nopp ñëpp yëg ko saa bu ndigal bàyyi ko ci ki fi toogal borom Tuubaa coono yi ngeen ciy daj nga xam ne du ngeen ci laaj benn dërëm ki gën a tuuti ci kër ga bu leen woowee ñi leen kaay leen jël ko ngeen ñëw te du ngeen laaj paas bu ngeen di egsee bu ngeen di demee du ngeen laaj paas bu ngeen delloo du ngeen laaj njëgu kaset yi ngeen koy tege bu ngeen ko tegee du ngeen laaj dërëm kon nag Serigne Touba mu ngeen bàyyi ak seen bopp di ko def ngir jëmmam nee na borom Touba moom leneen bàyyee nee na dugg na ci biir liggéey bi te it mi ngi leen ci ñaanal ngeen day jëcc tawfeex Serigne xaadim sëriñ bi nee na seen jumtukaay bii yàlla na ko borom Touba yëkkati te it loolu ngeen ci bàyyi xel moo ci am solo ndax jamono ji dañoo nekk jamono joo xam ni jamono yi. Eh, liggéeyal borom Tuubaa la ci jukko yi tey di ngeen ci am waar wu rëy ak sas wu rëy ndax kenn bëggatut a xool benn jumtukaay yi ngir génne yi ci ciy génne yu amul solo yi ak yu ñàkk solo yi waaye nag bu ngeen taxawee daal di takkatu lépp ngeen bëgg koo jëmale ci ni ko sëriñ bi bëggee nee na loolu liggéeyal Sëriñ Tuubaa la bu leen ko xeeb kon nag ni ngeen ci taxaw te jàpp ci li muy xat-xat sax xam naa ni dinañ sàkk ci moom sëriñ bi kenn ku ne xam na ni xat nga waaye buñ sañoon ngay yéeg ci kaw.